léeg-léeg ndax lan dana leen fàttali àllaaxira lu ko mat la mooy fi muy waxee ne moom yàlla bu ëllëgee saa bu nit faatoo dana jàkkaarloo moom ne ko nii ah, day laa la laa la sàkke woon par kenn laa leen defaree woon nit ñi li ñuy bari bari bari ak mbindeef yi li bari bari par kenn la yàlla defar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 bu wàccee war feneen kenn mënu koo daw kenn mënu koo moytu inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum moo tax mu ne nu ammilu amalan wa nabgi nitaajaha wa ala rada mimma nurajjihi aqrabu bis bu sa nos aka a nocci naan bu ëllëgee bu déwénee ma def fi benn bâtiment ma wàcc oto mel nangam ma dugalante ko am lii am laa te nee xamut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 waaye buy sanc muy sanc mook mook mook unk moom yi ittaxada baytan wa inna awhana albuyut la baytul ankabut ilallahi nas ilallahi nashku xaswatan fi qulubina wa fi kulli yawmin wa'izu almawt yandub فلله كم غاد حبيب ورائح نشيع للقبر والدمع يسكب نهيل عليه التربة حتى كأنه عدو وفي الأحشاء نارا تلهب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 ñëppay dañ ak réer Rafah TV leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rekk mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yuy bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer